Euh, Ghana a fait un petit match aujourd'hui. Mhm. Il a fait un petit Ghana match. Mmh. Ça arrive Ghana. très rarement. Mmh. Très euh, je n'ai jamais vu un Ghana Gueye mhm. euh, sortir ce, ce, ce, euh, cette, cette, cette, feuille. Mhm. En général, il nous a habitués à une meilleure prestation. Il est vrai que euh, Lima Diap, Boulaye euh, a rendu service, mais li ngay wax noonu effectivement day bloqué day bloqué. Euh, euh, flanc bi. Mm-hmm. mais c' est son rôle d' avant-centre. Mm-hmm. c' est à dire ki li ki mm-hmm. def. loolu la tàmm def c' est à dire il est écran ñu jox ko bal bi il sollicite il est il il sert euh, ou il garde le ballon ou il il sur les autres pour jouer loolu la tàmm def. mais je crois qu'aujourd'hui il a rendu service il l'a fait pour rendre service. mais ça n'empêche que effectivement il n'a pas rendu une copie propre. donc c'est c'est Sadio et et Boulaye. Sadio et Boulaye man moom sama top moom. Euh, yaakaar naa ne Cheikhou Kouyaté la te Cheikhou Kouyaté dama ciy profité tamit lancer message moo nekk ñi nga xamante ne benn jabar la ñu ñaareel moom lu baax vraiment la ci ci ci ci ci yow ba ñaareel yi jàpp ba aw yi da ñëpp dem di takki ay ñaareel ndax Cheikhou gis ma ah, bi mu amee ñaari jabar nag commencé jël équipe <laughs> ah, beneen benn top tamit favori jeeju li gars yi naan Youssou mooy woy naan naan faamaara ah. rëbbkat la woon gars yi ne ko déedéet faamaara dugal kat la léegi <laughs> faamaara ah, dugal kat la ah, je vous rappelle que vous êtes sur euh, Sénégal 7 bi mooy plateau spécial bi leen di def après chaque match du euh, Sénégal Père Ndofène Fall toog fii ñu débriefé match bi euh, càmbar ko li gars yi naan toj yuqu bi dañu koy càmbara càmbar yaakaar naa ne xeetu càmbar gi moom géej na am fii ci Sénégal te yaakaar naa ne on est la meilleure émission durant durant cette CAN. Mhm. Euh, loolu moom nan nan nan ko wax tëddee. Mhm. Euh, Père wax nga ñu wax ci but bi. Mhm. Sadbou Fall pourquoi Sénégal nga xamante ne bàkkee nañ ñu ne. Euh, du ñuy encaissé tey lan moo waral ñu encaissé tey war nañu def taxaw seetlu ci loolu euh, pour lan lañuy ñuy defaraat ba nga xamante ne même bu ñu du dugal ñun du ñu encaissé li El Hadj Diouf doon wax pour gagner il faut savoir ne pas perdre. Mm-hmm. bon équipe bu dem ma nekk dans le carré d'as mu encaissé benn bi loolu lu ñuy lu ñuy saluer la. Mm-hmm. mais juste rek par rapport ak le bi bi nga xamante ne moom la ñu tey euh, li ñuy mën a relever mooy que bu amee faute. wala benn coup franc pour l'équipe adverse mhm. il faut ñu nekk ci match bi c'est pas le moment bu bu ngay nekk ci coach bi wala nekk ci arbitre bi di wax wala nekk ci keneen non il faut y être parce que yàgg nañu gis aussi que dañuy teg corner joueur yi jàpp poteau wala def leneen mhm. que bal bi après ñu door a nekk nag di réagir mhm. c'est-à-dire que on doit être dans le match de la première à la quatre-vingt-dixième voire après ci temps additionnel bi nekk ci match bi mooy bu amee faute ñu taxaw ci kanamu bal bi balaa jeu rapide di am parce que aussi li nga xamante ni équipe yi dañuy xool kenn ku ne da ngay xool faayu keneen. Mm-hmm. parce que tey Sénégal bu nekkee day xool faayu Burkina Faso. Mm-hmm. mais le coach du Burkina c' est un très coach. ñu ngi xool tey moo ngi seetaan équipe nationale fan laa mën a jaar ci ñoom. Mm-hmm. tey aujourd'hui boo xoolee euh, match équipe nationale tey. on a eu 21 boo xamante ne Sénégal ñoo ko commettre. Euh, li nga xamante ne mooy Guinée Équatoriale 19 fautes. donc y' sànq lan moo tax ma ne yow top bi Sadio Mané la. Mhm. mais Sadio Mané c'est-à-dire le tempo du match y a certaines yu nga xamante ne dañ koy da l'adversaire mu def ko. Mhm. day casser le rythme. Mhm. te parce que l'adversaire il peut être dans une phase yi nga xam phase bu baax la. donc s'il y a certaines fautes day casser rythme moom. donc boo xoolee le joueurs de la Guinée. parfois bu arbitre sifflé yenn fautes yi dañ daan découragé dañ daan ñëw ci moom di wax parce que ils étaient dans un bon moment du moins te moment boobu noonu waroon nañu profité ñoom pour am dara mm-hmm. donc l'équipe nationale li may wax rek pour bañ a encaisser il faudrait que l'engagement mu nekk un engagement sans faille de la première à la quatre-vingt-dixième minute mm-hmm. engagement bi nga xamante ne Sadio Mané day ñëw reculer ba dans l'axe mm-hmm. jël bal bi on prend pas de nekkee ça traîne on dañuy tulli après on parce que tey aujourd'hui l'équipe du Sénégal n'a pas presque marqué benn penalty la ñu dugal ci match de poule mhm. oh, ñu génn bi ñu génnee aussi on a marqué contre euh, ki nga xamante ni moom mooy Cap Vert réduite à à neuf du moins mhm. te tey jii on est en demi benn bi la ñu encaissé mhm. on marque peu mais c'est assurance la en fait donc pour ñu bañ a encaisser daal c'est que la tâche défensive ne doit pas incomber seulement aux joueurs ñi nga xamante dañoo yor vocation défensive à toute l'équipe et bu équipe adverse am coup surtout dans l'axe wala dans le dernier tiers mhm. moment boobu nañu war a taxaw ci kanamu bal bi mhm. donc veiller vigilance boobu noonu moom la ñuy parce que on a un boo xamante ni rares les équipes yu ko am actuellement mhm. donc on peut compter sur lui on a une paire défensive même bu nekkee yàggul parce que on on habitué à une paire défensive mooy Kalidou Koulibaly Sané actuellement Sané n'est pas là on a Abdou bon sur la relance. Mhm. qui peut parfois entrer dans les espaces dugal passe dem des mhm. ne day casser mhm. a habitué de casser les lignes par ses passes. aujourd'hui la passe pour ki nga xamante ni mooy Saliou Ciss a xalaat naka la koy contrecarrer. donc en retour aussi sur l' aspect défensif war nañu mën a xoolaat li nga xamante ni mooy la concentration. man je pense que concentration boobu noonu que ça soit corner que ça soit coup dans le dernier tiers ak bu mu mënti doon. Mhm. l'équipe doit être concentrée. parce que va vers un match très très compliqué. Mhm. même bu nekkee par exemple sur le papier on se dit que nous sommes supérieurs mhm. au Burkina. mais le Burkina a, des milieux de comme Bladi c'est un très très bon joueur. Tout le milieu est un milieu joueur. ils ont des joueurs qui jouent. maintenant war nañu mën a xool les failles failles Burkina peut mën nañ ci waxtaan mhm. mais pour ñu bañ a encaisser pour répondre à la question de Vito mhm. mooy ni que la concentration dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a teg en bandoulière waaw il faut savoir faire le dos rond mhm. et euh, être rigoureux pendant quatre-vingt-dix minutes parce que effectivement maa ngi gis Aliou Cissé jamono yooyu mi ngi demandé équipe bi mu génn parce que on a on a fait un bloc bas kon n'explique pas que mënoo mener à zéro tu reviens au moins mets-toi en bloc médian haut parce que ñun on a les éléments pour pouvoir jouer cela mhm. am nañu axe central boo ko seetee ñoom ñoom euh, effectivement euh, dans dans l'axe central dañoo jekki-jekki <clears throat> ils avaient mis deux centrales mhm. deux attaquants pour nous obliger effectivement à à mettre un autre élément si nous voulons être en supériorité numérique dans l'axe mhm. mais loolu buy am il faut remonter l'équipe et juste euh, euh, dañu am benn période boo xam ni on a passé notre temps à récupérer et à balancer le ballon. Mhm. ñoom ñu jëlaat ku ñëwaat. Mhm. parce que li tax ñu koy jëlaat ñëwaat là les défenseurs étaient en zone de confort. Mhm. kenn kenn gêné wu leen. et ils étaient peu pas le ballon à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon dañ koy jouer. et ils le jouaient proprement. et c'est ce qui a fait qu'à un certain moment ça finit par craquer. et euh, il y a eu un sursaut d'orgueil quand on a pris le but. non seulement effectivement les changements. mais visiblement joueurs yi ci seen bopp euh, dañu dañu ku ci nekk da nga da nga gën a gën a engagé gën a déterminé. Mhm. et c'est ça qui amène le but parce que bu ñu fàtte ni am na ñett ñu mbëkk avant que euh, équato guinéen bi di di ko mbëkk pour jox ko gardien de but. Mhm. ça veut dire que l'engagement était présent et la détermination. Mhm. cet engagement nag ak cette rigueur là. da nga koy def pendant quatre-vingt-dix minutes quand il faut mettre le bleu de souffle mhm. il faut accepter de souffrir mhm. euh, euh, ce qui c'est ce, ce que le Sénégal doit regretter c'est d'avoir pris ce but là mhm. parce que bu fekkonte ne ñun dañu duggaat ci match bi immédiatement parce que boo seetee bi ñu dellusee deuxième période bi immédiatement après sur les les dix premières minutes Guinée équatoriale rek mooy attaqué. Mm-hmm. te ñun on avait les moyens vraiment de pouvoir sortir. sa mm-hmm. il faut mettre ça dans la réflexion. Mm-hmm. en direction du du match de demi-finale. équipe day mën a souffrir bu waree souffrir. yow nga am temps fort man sama temps fort ma fexe ba dugal ci bii yow ci sa temps fort dinaa fexe ba doomu ci dugal but. et comme j'ai dit par ailleurs bu ñu amee yenn flèche yi. des fois da ngay nangu recroqueviller pour pouvoir créer cet espace là entre la dernière ligne défensive et le gardien muy espace bu yaatu Dieu fait bien les choses parce qu'on a récupéré euh, euh, parce que si tu as deux flèches comme Sadio Mané et Ismaïla Sarr loolu tu peux accepter effectivement de te recroqueviller en se disant que dès la récupération du ballon je, je projette, je, je, donne la balle dans le dos de la der, dernière ligne défensive tout en me disant que Sadio Moti wala, wala Ismaël Sarr Moti mhm. Ça faisait partie euh, des, des, des, armes du, du, Sénégal qui nous permettaient effectivement de marquer certains buts. Mhm. sur la, les sorties de Koulibaly, rappelez-vous notre match contre le Togo. Le premier but de... de euh, euh, euh on en parle depuis tout à l'heure, l'Alexandre droit. Mhm. Euh, Ismaïla Sarr non pas Ismaïla l'autre Boulaye Boulaye le but de Boulaye Dia mhm. c'est sur une passe de transition de de de, de Koulibaly mhm. qui a permis effectivement qui lui a permis d'aller faire le but mhm. donc euh, mettons tout ça dans la réflexion et dans le dans la corbeille et tout en nous disant que euh, il ne faut pas euh, jeter Boulaye parce que Boulaye quand il est centre-avant il est dangereux ça moom moo ku nekk sa panoplie c'est-à-dire euh, Famara Diédhiou c'est un renard des surfaces. Boulaye peut revenir pour jouer et il le fait, il le fait vraiment très bien. C'est ce que je dis que cette équipe-là va se bonifier au fur et à mesure parce que non seulement nous récupérons nos éléments, mais en plus de ça, euh, je crois que l'encadrement technique est en train de pousser la réflexion et de se dire quel 11 d'abord pour jouer contre le Burkina. Pourquoi ce 11-là? En fonction de l'adversaire qui est le Burkina. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais la, la grande leçon à, à retenir, mmh. c'est que euh, Aliou est en train de retrouver son équipe. Non seulement de retrouver son équipe, mais des propositions de système de jeu mm-hmm. lui permettant effectivement euh, d'aller de l'avant. Mais n'oublions pas que cette équipe a quand même eu du caractère. Mmh. Parce que tu mènes 1 à 0, tu es tranquille, un match massin, tu reviens en deuxième période. Euh, non seulement tu es, tu es ballotté à droite et à gauche, mais en plus de ça, tu prends un but égalisateur. Sur le but qu'on prend, euh, c'est vraiment un but qui a été construit. Mmh. Euh, euh, aucun Sénégalais n'a touché le ballon. Il est vrai qu'on a été naïf. te mm-hmm. loolu ñi ko doon def. Mm-hmm. naar yi ñoo ëppoon li ñu koy def. Mm-hmm. pour jouer rapidement à leur coup franc da ngay fot wëlbatiku dem di ñoom ñoom ñu teg bal bi jouer ko. dem dem dugal la ko. et c'est c'est à mettre aussi dans la corbeille de réflexion. mënoo mënoo fot ba pare rek. wëlbatiku dem sa yoon tu laisses le ballon à l'adversaire il y aspect cest dire l'entrée de l'équipe en, deuxième mi-temps mm-hmm. deuxième mi temps dire ñun teelu ñu jugee mi en fait ñun on a quitté les vestiaires mais dafa mel ni parce que y le penalty qui a été sifflé par l'arbitre après mu dem xool VAR mm-hmm. moment boobu noonu l'équipe doutait mm-hmm. et moi je me la question ba may seetaan match je me disais pourquoi on on est plus fort que. Mhm. on devait jouer on joue. mais dute bi euh, bu du ci du ci équipe bi sax même euh, réew mi ci boppam par rapport ak effectif dañu ragal ñëpp ñun ñëpp dañuy dute. Euh, man tey tey tey tey maa ngi ci doon waxtaan ak Babacar ba ñuy ñëw Babacar mu ne man gëm naa ne man maa ñun ñoo mën ñëpp man loolu laa gëm. Mhm. mais ñun fekk match bi jeexul ñun da ngay yaakaar ne dañ lay dóor. non c' est que la la coupe d' ou bien les compétitions les compétitions ont su enlever cet optimisme du Sénégalais. parce que le Sénégalais avant bi je me rappelle en 2011 dañ wala ne équipe yëpp ñoo leen mën. on avait un match de poule en premier match Zambie. Après, on avait la Libye, l'Afrique du Sud. On perdait trois matchs, 2-1, 2-1, 2-1. Nibissi. Nibissi. Mm-hmm. Avec une équipe, bon, à l'attaque, on avait Moussa Assao, Demba Ba, mais il y avait des Papis Demba Cissé. Mhm. C'est-à-dire que dañoo dem. Mhm. de fil en aiguille ñuy dem ci compétition yi ñuy dem ñuy ñëwaat ñuy dem ñuy ñëwaat. Mhm. Cet optimisme-là dafa commencé dañ. Maintenant, li ko remplacé mooy le doute. Sénégal tey jii même bu joué équipe boo xamante ne équipe bu ndaw la kenn xamu ko. mais les gens doutent. parce que on est habitué à ces réalités des compétitions et c'est mmh. normal mmh. parce que posture bi ñu nekk tey jii c'est une bonne posture sax daanaka parce que l'équipe ñu bëri dañ na ah dañuy dem ñëwaat mais ni ñuy gën a dem di évoluer les gens s'intéressent maintenant cette ferveur là ah. mu ngi door a commencé di jóg tey boo xoolee mbeddu Dakar yi da ngay gis ah, les gens commencent à acheter les maillots commencent à acheter des drapeaux des drapelés par ici mais li nga xamante ni moom moo ci am rek mooy l'entrée deuxième période bi mmh, ba moment bi ñuy encaissé bi équipe yi da doon douter. Mhm. et lan moo tax bloc bas boobu noonu man je me demande pourquoi. ñu def le bloc bas. Mhm. pourquoi je me demande parce que on avait la possibilité. Mhm. de de remonter le bloc. on a des joueurs qui sont rapides qui peuvent couvrir. donc ñu joué et en face on avait que Nsoué. moom moo fa nekkoon l' attaquant qui était là-bas. c'est-à-dire que même le buteur ki nga xamante ne moom moo dugal but mais c' est l' quand le bloc bas, ils ont cette possibilité de se faufiler entre les lignes et de jouer entre les espaces. Mm -hmm. C'est ce qu'ils ont exploité. Mm -hmm. Maintenant, en demi-finale, c'est un autre match dans un, contexte peut-être qui, sera autre, mhm. avec un autre adversaire qui est différent. Et un autre système. qui est différent de qui football le mhm. Parce que le Burkina, quoi qu'on puisse dire, c'est une équipe qui est Dès le jour, nous fait tout. Traoré, bon, mhm. Mais, ils gravitent autour de lui, c'est des joueurs qui sont pas en tant que figurant. Mhm. et Burkina depuis ces dernières années elle est habituée mu ñëw ba. ci li nga xamante ne mooy quart de finale demi finale. maintenant ci li nga ne moom mooy finale. Mhm. maintenant nag euh, ça sera pas mhm. le coach burkinabé kenn ku nekk yaa ngi xool. sa façon ak sa staff nan ngay élaborer benn stratégie man ngay corriger say failles parce que aujourd'hui les failles bi nga xamante ni mën lañ ko noter mooy le bloc bas bi équipe bi donc on devait ne pas le jouer loolu moom sa se justifie pas. Mm-hmm. Mm-hmm. man gisuma benn raison boo xamante ni war nañu mën a jouer un bloc bas. Mm-hmm. parce que on n'avait pas en ce moment. des joueurs très explosifs. parce que bu ñu jouer ba bas dina leer ne que tu avais Ismaïla Sarr tu avais Sadio Mané tu profites de l l'espace bu ñu génnee on fait une passe. Mm-hmm. et voilà day nekk contre attaque. tey amuñu ko woon. mais te amuñu ko woon. Mm-hmm. moment bi nga xamante ni ci la ci la ci la euh, Kouyaté dugg ci la Ismaïla Sarr dugg donc on a vu que y a du jeu. espace mm-hmm. bi commencé na on les bousculait dans leur dans dans leur chair. et puis on a essayé de glaner des ballons par par là. boo xoolee aussi ci match yi. dans tout le match quatre pour le Sénégal. équipe adverse am benn corner. et ils ont marqué un Euh, et et possession boo xoolee ils ils ont 58 et nous avons 42. Mm-hmm. mais cette possession là bon ne se justifie pas. ci match bi déroulement match bi. tout à fait. donc boo xoolee ñoom dañ di jox statistiquement pour cent ñu jox ñu pour cent. Mm-hmm. mais occasion yi ci ëpp. que ça soit les tirs cadrés ñoom ñoo leen ko ëppale que ça soit les corners ñoom ñoo ko ñoo leen ko donc ça veut dire que l'équipe était efficace était offensive. Mm-hmm. dans des moments mais le bloc ci début wu deuxième période bi. Mhm. vraiment si c'était une autre équipe bu gën a mag. Mhm. Guinée équatoriale mënoon na gën a ñaaw. Mhm. c'est c'est c'est le bloc bas d'ailleurs qui justifie. cette différence là dans la conservation. parce que ñun à chaque fois que bal bi ñëw dañ koy dégager. ñoom ñu jël ko joué waat. donc ça veut dire que loolu day augmenter seen temps de possession. et gis nga possession da ngay dégg di gaa yi di wax ne. Euh, c'est une possession stérile une possession n'est tant que maa ko yor maa la ëpp chance dugal ko mm-hmm.